bu ñu jógee si combat boobu. beneen combat bu amateur yi coow amateur yi di ko waxtaanee bëgg mu taxaw. doomu dégol bi sonal bala Gaye doon loolu lan nga ñu mën a wax si combat boobu. waaw sonal nit ñi tax ngeen bëre sonal ngeen bëre mën nga sonal di ko di ko dëkk di ko dëkk toujours nga dëkk ko nag mais moom bu paree wul ko pour ngeen bëre parce que moo la fàtte kaw ba pare ngeen bëre du ngeen mën a bëre. Balla moom nee na pare na. comme pare sotti na kon am léegi. promoteur daal moo ci des. waaw ah, kon nag promoteur waaw bu ñu ko doon jàngatal nan nga ñu ko jàngalee Boy Niang Balla Gaye 2. waaw ah, su taxawoon dem mën si wax dara waaye comme taxawul. Hmm. mën si wax parce que taxawul bu taxawoon nag mën si wax dara parce que ku si xam naa sa marine xam naa sa point fort xam naa sa point faible. Hmm. kii dina attaqué am na moyen xam day attaqué am na règlement lay attaqué. Hmm. lu ko neex lay attaqué. Balla. lu ko neex e attaqué. Mhm. même parce que position mën ci attaqué. Mhm. waaye kii tamit mën na xaar. ku mën a jumloo mbër la. Mhm. ku surtout ki attaqué mën la jumloo. mën na ko jumloo nag ci biir bëre bi. man combat la war a doon. parce que kii mën na bu dee la. ah day tooñ pour jumloo la tooñ la reculer nga def faux pas mu mu la. loolu mooy ma ma booy ñàkk loolu ko mën la. jumloo mbër si biir bëre mën mhm. na ko trop mhm. bu ko mënee la xamoon bés ba nag xam dana taxaw ba taxawaay wala déet mhm. baa ndax bala moo koy jumloo wala waa ji moo koy bu taxoon nga yaakaar nan lamb ak diñ naan lamb crise bu mu nekk lamb est ce que jàpp nga ne combat bu taxoon mën na bokk li suqali lamb waaw yu gën suqali lamb mooy Ama Baldé ak ak euh, Modou Lo gën a suqali ko Boy Niang Balla Gaye waaw moo a suqali ko Boy parce que moo gën nag combat bu bu nekk euh, soxla lu ko waaw te soxla nañ ko trop parce que kii naa ñi naan Balla kii ma mën. ah Moodu. Moodu mën ñi naan Balla kii mën. Ama moo mën donc ñoom ñaar dañu leen sëkkale bu yàgg. dañu leen lu tax mu ak. mais dafa lu tax mu deful lu war a bëre Balla. su ko jëloon daal moo koy may chance. moo koy may chance. mais Ama moom jàpp nga ne Moodu may ko chance. may ko chance may ko chance. mu tax mu ku daan uh, uh, dan Sow daan guy dan guigi daan guy gi daan sos kooku may la chance yaa may chance bopp ak Malick Niang yaa ngomong sa bopp chance kooku kan may ko chance kii nag moom dafa jóg rek bu rek kenn ci grand yi stoppé ko téye ko waaw la dëgër waaw la dëgër téye ko kon moom dafa ci rajo. léegi su ma arrière waatee tuuti nga yàgg représenté drapeau Tigre de Fass drapeau Fass nga yóbbu nga yóbbu Tigre Fass fu ne def lu ne ci biir làmb mu jigi ñu jékki-jékki dégg nga créé écurie écurie Mbaye Guèye école de lutte Mbaye Guèye waaw lan moo waral sababu lu waral loolu noonu. lu waral loolu moo di rek ma dëkk fi Fass. Mhm. dëkku bëri la fële dëkku bëri la wante dem fële toujours du ko mën. Mhm. ma doon naa créé nag loo xam ne. Ah. dina mën suñu attention si si xale quartier bi mën mhm. ñu mën si jëriñu mhm. waaw xale yi nag am nañu si jëriñu am nañu si jëriñuwul am na ñoo xam ne ñu ngi woon si biir ba léegi ñu ngi dem feneen dem beneen école lañ dem c'est notamment ñu bari ñooy dégg fii ñoo bari ñooy dégg fii si ci làmb ji maa ngi def ABC lutte muy muy concorde parce que ABC lutte mhm. kenn kenn ki nekk ba am rem tuuti xale januar bi ah. di nga la dëkk Dóor waar la dëkk waaw. Euh, euh, xale séeréer bi nekk ci Marambara. ndeysaan Thiat. waaw. Thiat booy baax na waaw maa mhm. euh, junior. Mhm. maa koy defee ABC lutte. Mhm. maa koy maa ko maa ah. ci jël ay drapeaux yu bari. après mu dem ci dem ci kii. Double S. waaw. Tyson Junior tamit. bu Kaolack waaw waaw kon fa ABC. la jàngi bëre. la hmm. jàngi léewtoo. Hmm. léewtoo fi la ko jàngi. lépp yaa ko ci bari maa ma ma maa jàngal bëre. ñuy jàpp njàmm maa ko jàngal. Hmm. ni ñuy reculer maa ko jàngal. ni ñuy dóore ko jàngal. ñu bari ci xale yi. côté léegi mën nañ xam équipe bi kañ nga ko formé depuis kañ la. six ans de cela. six ans six ans bi muy soog a am na samp yu ñu fi doon dégg. ba ku ci nek sax amone ngos lo ron wane ci bir lamb ndax amone nañ ci ku ci mel amandaw am fi ki nga xam tane bi moy Kara dole amone fi Mbaye Gueye Junior Mbaye Gueye Junior dem dem na ci double am fi sang waw amone fi tamit sang waw sang moom aussi dem na keur Massar ah dem keur Massar dem na Kër Massar waaw mais mais la waral lolu xalé yi di jek jek di ko di dem le tigre xalé dañ leen doon dégg waw ñu doon jëmmal écurie bi jek jékki dégg am loolu am légui parce que li hmm. am légui moy Eh, dafa amoon benn station bu tuddoon mbëri démb ba bokkoon si mbëri démb mbëri démb dëgg la ñun ñun du ñu engagé suñu bëri mhm. wala boog bu ñu engagé ñoom du ñu bëri ñun dëgg la du ñu signé contre ñun loolu moo amoon loolu loolu mhm. xëy tamit mënuñu toog bañ a bëri dëgg la loolu tax ba ñenn ñi sax dañ dañ abal yeneen yeneen yeneen xale yi waaw yeneen yeneen ménager yi mhm. comme Fallou waaw ak mu ngeeg euh, Amandaw Amandaw waaw Kara Doole Kara Doole euh, Fall mu ngeeg mu ngeeg euh, kii euh, Mamor ak ñooñu. Mamor waaw bu dee tey ñoom ñëpp mu ngeeg ñoom. ñoo ñu engagé. Mhm. pour pour ñu ñoo libéré pour ñu bëri rek moo tax ñu bàyyi leen. Mhm. mais bu ñu nekkoon fexe boobu ba léegi kon du ñu bëri. dëgg la waaye léegi nag yàlla baax na. Mhm. maa ngi wut licence pour bokk ci manager yi. waaw bu déggoon dama dama dama libéré. jox ma carte. comme ça mu am ma am naa carte manager CNG. nga mhm. am carte manager. pour bu seen groupe bi. pour bu seen bi waaw. Ah, léegi nag boo boo bu libéré rek ma am carte mhm. xale yi ma libéré ak ku mhm. bi écrit bi ni muy doxee xale yi. xale yi ñu ngi xam nga yaakaar si ñoom ni kat. ëllëg war nañ teewi ñoom waaw bu baax a baax. Amor mu ngi ci yoon. waaw mu ngi ci yoon Amadou Ousseyn mu ngi ci yoon. mais Ama Ndaw gars yi gëj na gis mu bëre de. qu'est-ce que ah, gëj na bëre gëj na bëre trop su ma ah, juumalee. gars yi ku ku ñu ko jox gëj na bëre parce que boo xoolee Mamor rek la ñu gis daal. waaw les tigres mu mu ngay jëmmal. waaw waaw ñi des ñëpp déggatuñu leen. waaw ñooñu ñooñu ñëpp rek. gars yi dañu bëri bañ a bëri ñoom rek. Hmm. ragal leen rek blessé ñoo leen fi bàyyi. ñoo leen fi bàyyi. Ah. parce que toll ni ñu ñoom dàq ñu leen bëri kon nag amul lu ñu leen lu ñu leen envier. lu ñu hmm. xaar si ñoom amul dañuy bëri rek daalante waaw bu ñu bëggee bëri nañu bëri xale yi hmm. xale yi xale yi xale yi fi nekk